su ma nga dee de gis nga bi nga jógee ci waañ bi yor palaat bi pour man danga may xaañ ah. waaye lu ma ca xam man kat ñoom mbay ne ma dangaa yori kuur yori gën ni roof di ma xaar. dinaa la xaañ yow tamit dinaa la gis. Ah. a xalaat leneen di la waaye kon man de mbay jaaxal na mbay de nee na ma boo duggee ba ngoone mbay jàpp la danga daw. ah. <coughs> waaw dëgg ni ma kuur ak roo kuuri roof yi <laughs> ah loo doon jooy yow nag ah yow tamit. léegi naa kër gi yëpp jooy nga ko tëju bañ a lekk. waaw kii nu mu tudd grève de faim. gisuma la kay doo loo bëgg. Eh. sa diggante ak yàlla yow xalaatuma ko. Ah, xalaat xam nga mag mu dem tamit ñu ñu ñu ko. <laughs> bu ne wàcc naa ko. <laughs> man nag père Tab lu tax ngeen ma takk Ngóone Mbaay rek dem dégg naa lu ne ci kër gi. dégg naa dafa daw dafa dem ci beneen jabar jaag toog du loolu nit bu xam demulee lay leen lu tax mu dem man maa koy leeral comme damaa takk jabar defe ni woon takk en sourdine la mu siiw ñu takk ma xala dama demoon defaru fi ñu toll nii nag defaru naa ba wér dellu waat naa ci biir kër gi <laughs> wallaahi <laughs> maanaam wér naa wér naa céng fi ñu toll nii wér naa bu ma cat dabaatul ci diggante bi may tëdd ak bi may yeewu wér naa kon nag dellu si waat naa ci kër gi dina yëngu dina saf te neex en lox loolu. Ah, defal nañ yàlla nag de. ah waaw mais ni ngay ngay gis ah, nit lii rek la moroom moroomu itam waaw imaginel tey bu ñu taxawul woon. waaw ndekete sa waay moom. mënatul lu bëri ma nga toog di lijjanti boppam. amatul lu bëri de mënatul dara ragal la ñëw. mënatul woon dara mais looy takke bu la leeree ni yow desewoo dara looy takkee di lor doomi jàmbur. sax ma loolu moo am ci société bi ba tax léegi ñu bari dañu am seen jëkkër ba pare di jàdd c'est parce que. mais àq la loolu àq la. waaw mais tamit xale yi jigéen dañ si am part de responsabilité mooy boo demee ba mu leer ne la ki nga yor mënatul la satisfaire danga koy bàyyi. l'islam loolu la sax. waaw mais doo ko bàyyi. ba pare dem boole ko leneen. loolu tamit li Père Mbaye ma ngoone waxoon. mu ni mu ni xaw ma am na lu mu waxoon de. ci góor li ko war jigéen. waaw ci ki mu tàkk. mooy. naa ne war nga de waaye ma ne bu ma ñëwul dinaa dee de. moo ko pooj fi la daanoo. jaaxul lii. commencement rek laa def noonu. waxu jàmm de. xam nga man li ma neex ci néeg bi dem façon cuuraay bi fu mu jógee. <laughs> kenn xamul nga yaakaar dinaa la ko nga yóbbu ko sa. daal miine woon toog di ma xaar. bu baax pare li may ragal mooy xale yi déglu ci biti. xale yan. waa kër gi. ah xale yi. comme sa baat laay bañ ñu dégg ko. waaye xale yi bàyyi leen ñoom ñoom xale yi kan ban xam danoo dox bay dégluwaat. ah, ah waaw loolaa kër gi. baat bi dee ko wàññi am na kuy jool ko fi nekk nag kooku moom. kooku dafa waroon feebar ba yëf yi ji ba ba ma jóge fi sa ku njool ku sob kooku mooy kan yaa awa sob na de sob na de moom xam naa ne bu yor luy am mooy yor waaye du fi dégg jàmm rek ah ay mag yu nekk seen néeg waaye nag jàmbaar nga ndaxte jigéen dafay muñ man yaakaaroon naa ne ma ñee xeex dina am waaye nii nga def la jigéen ju baax ji def waaye nag yaa ma tooñ ndax mariage bi dañ koo waroon def mariage à douze nga yëgle. yëgle wu ma sax de. ah waa tey yaa yëgle waay <laughs> jàkk rek laa def de. ah loolu ko siiwal. déedéet yow yaa yëgle boo xam naa la xam naa say fiem yaa yëgle. bàyyi ma ko yëgle. ñaata fan nga fi am. Ah? fii nag xam naa ni dama ne woon naa ñëw tey rek di fanaan rek dem. lan ah waaw. <laughs> ñaari weer. ñaari. ma ni kër gi doo ko génn ci deux mois dama la mettre en quarantaine. waaw yow tam moom mettre en quarantaine. non loolu laa bëgg te loolu ngay def. mettre ma en deuxième rek ma dem kër ga fee bàyyi ma fa dara. Euh. ah waaw bu ma toogee fii du baax ñaari weer di. ñu envoyé leen amul problème. mais fii ngay des. ah waaye tam wàññil ñaari weer rek. naa la ngay des. wàññil ñaari weer yi xam naa li ma la wax. déggoo ma de fii ngay des. tam tam ngeen yaakaar ni damay xuloo baa may xeex du ma ci def benn jéeg laa bu am patience ngeen yaakaar ne ma nekk fi di xuloo di xeex perte de dellu ci beneen jabaram te ah, aawaam. dama koy récupérer nànk ak dal tey ku ci teg ak tey di ko wax lu neex di ko def lu neex góor loolu la bëgg xolool gaañoo ma ko gën a dañuy jamono ji góor dëgg dëgg dëgg man ngaa jël setal la ndox bu fees dell lonko ci te du daan lonko fa ron ko ci mbay déggal fi may waxe ah, c'est talent jamono ji <laughs> jamono ji de boobu <laughs> da nga dul gis foo la plus déggoo ma de mouchoir argentin nga tooyal ko rek teg ko ci day wàcc <laughs> xaw ma dund gi la xaw ma léegi loolu lan mu léegi am ba pare am na beneen xi am beneen bu mu waxoon mooy ci ñu rangaloo noonu di saw xaw waaw newoon na tamit ba maanaam góor dëgg wala ngay xam dooleem dëgg mhm. puissance am mhm. bu ñu mësaan taxaw nii rangaloo mhm. nga ñëw bëgg a saw nii bu nee car dafa war a sauter lu bari kay ca soriantoo ba ak ku ci nekk sa distance ni mu toll fa la ñuy xamee kan moo gën a nekk góor hmm, waaw léegi loolu moom amatul parce que des fois léegi di nga gis góor romb la dugg ci sàll mais di saw mais ay car ngay dégg ak yooyu ay car amatul am na góor ñoo xam ne bu ñuy saw rek dañuy jonkon nii pour la moom ah mais yàlla dimbal na en tout cas man. benn jonkon rek seen bopp la ñuy saw parce que réew. doo ma bàyyi. mooy mooy baal ma seet léegi mais perte am moo am dafa mel ni parce que fanaan na waaw moo ma jaaxal. te dañu woon mënatul. xaw ma ban ban ban système léegi nag ba pertaf du ngaaka. waaw léegi nag fi mu toll système yi nga xam ne moom lay utiliser ak yooyu man il faut mu waxtaan ci ak pertaf. waaye daf ko juróomi fan rek. waaye xam nga xale yi ci kër gi tamit ah. Hmm. boo fi defee ñaari weer day ëpp nag. li ah, yàlla <laughs> ak xale. Hmm. ah xam naa ne kër gi daal li ci gën a neex mooy cuuraay démb bi. sa cuuraay na xanaa dafa <laughs> loo xalaat rek am na. ah jeeg dafay mën boppam mi ngi ci biir cuuraay barke yonent bi sa ah, waaw <laughs> xam nga nag boo juddoo dimanche dafa mel ni maa ngi de. jox ma xool ko rek xamoon naa ne dina ma woo. maa faal alma kii dama koy gis man bu génnee moom buy bu génnee man berte wala naa la man naa ko fekk ci néeg bi parce que man na lu ma bëgg a wax. Eh, ma ne naa. asalaamaaleykum kaay kaay kaay kaay kaay gisoo ma jël ko gisoo ma jël dangay mujj kii la naka mu. Eh, coow ah. yaa nii loo ma gën a jege nag mu gën ca. ci loo ne. maa ngi nii rek bari naa ci loo ne. maa ngi nii ca la ma ne woon rek. maa ngi ci yam. ci jàmm ak daw corona. dajeeg safar bi muy nalli nalli ci. waaw <laughs> escalier man bu dee bu daal bolt laa ko tegoon. waaye kon waxuñu leen ni. daa am lu mu bokk ak bolt. waxuñu leen may sa daanu fi daanu xanaa. daanu lan. may sa dee fi daanu xaw ma jéngi daanu xaw ma yóbbu nañ ko daal. clinique ba. non mais loolu mooy lan. am na sax clinique ba. Eh, bàyyi nañ ko clinique ba mais. xanaa dañ doon libéré fii dafa tooyoon wala. non non man damaa génn rek gis ko mu daanu yaawu yuuxu. ko après ngeen def nan. ñu jàpp ko mag yaawu yuuxu. ndeysaan. waaye yow bala ngaa ci maa gaañu ñii ñooy gaañ ñii. lu ñuy rey. yéen nan la Maïssa di daanoo. ngeen ñëw jànn ko di ko yóbbu te woote woo leen. ak fi corona bi toll Ibou. da bëgg a corona corona lan la jotee nga ñëw faxastalu daanu. faxas waaw ah, dafa faxastal. da ngaa dégg ñu wax la leneen lu fekk ko mu daanu daanu nii. yaaw yu ànd mi ngi doon wax ak yéen wala. jàppoon na ma comprendre yooyu noonu mooy li may expliqué nii dañu am benn numéro boo xam ne dañu ko joxe muy 800 00 50 50 pour au bu fekkee gis nga benn affaire yow kooku noonu da ngay woote gars yi ñoom ñoo war a ñëw jël si ko. yow kon a wax may sa amaana peut mu corona. mais dañ ko njortu bu ci dugal sa loxo ah ñun de du sóobu nañ moom dañ cee sangu sax foofu. ah dimbali. Ah, non taxee na jël mètre yi rek. waaye si caaxaan sànq laa fi ñëw nga kootuma. ma wax fi wax may sami daanu ñu yóbbu ko daal nga dem laay dem laal naa fas sama a xooli Moussa Vigile fa. yéen nag ay baadoolo ngeen waaye jàpp leen ni. fu mu corona wee corona naa fa te dinaa leen waal. waaw <laughs> cas yooyu ñooñu ay cas jàmbur lañ fi nekk ay kaaw Maysa kaaw Ngoone Baay kaaw Perta kaaw Susko mais man sama cas. allo. dangaa <laughs> ngi sant bu baax. Mm. Mm-hmm. mii nii sama wet. Ah, mbaa nelaw na bu baax rek. non talul nelaw bu baax lu muy nelaw nekk ci man di nelaw. Eh. dafa laaj toppatoo de. bàyyi ko sama loxo. Hmm? toppatoo rek nga bëgg. Hmm? Ah. fekk nga ma ci. petit déjeuner mbaa xam nga lan la. mooy comme d'habitude rek li nga koy defar. faaw mu changé plat pour mu mën a neex. sur le plat la tàmm. boobu noonu. est-ce que ah, neewul ma ko defal tey moo dàq. boobu mos ko nekk. Ah. ne loolu nga ci jàmm. yaa ngi ah, man de ci jàmm ju neex. jàmm ju saqan sax. yow kii nu mu tuddati depuis bi toogee fee ngay woo ngay woo lii ka xam nga yow da ko waxoon pour mu ñëw ci gàll bi. si ñëwoon na ma dàq ko. dégg naa parce que dàq ko ci di ko dugg ci gàll bi. xam naa woo war naa di la ko tegal yaa ngi koy dégg wala. yow loolu nga def kon après da ko dàq. da nga ko dàq man dama ni woon sax après euh, comme dañu nekkoon ci situation yu xaw a bëri comprendre nga muy ci cas Ngone Mbaay bi ak yeneen bagage yoo xam ne ni maa ngi ci woon donc ce dossier ak moom am na lu bëri loo xam ne ni càmbaroon naa ko ci. mais dama ko tege à côté daal. mu xaas parce que euh, waaw gisante nañ. si gisante nañ après lañ gisante fii xam naa boobu peut-être xawma ci lan nga nekkoon. mais vite fait question de vite fait lañ gisante ma yàq ko lu mel ni xeme nag ndax lim la def dafa maa metti man dégg nga wax dama ne woon fi ak suba wala ginnaaw suba dinañ toog waxtaan ci. yaa ngi dégg yow ni nga def nii noonu la jël nga sa garde mer nga wan nga ko ni man li nga li mu nekk nekkoo ci yaa ngi dégg mais ci kattanu yàlla ak mbaaxam bu ñu toogee deux jours wala trois jours bon après ñu xool situation bi naka lay demee ak yooyu comprendre nga yow daal bu ma sañoon yow bul dox sax bu bul ma sax laajate ay ay ay lii kaak yooyu fàtte ko comprendre nga oublie la dans ta mémoire dans ton cœur actuellement comprendre nga juste stratégie la nag voilà bul toog di ko laajte wala nga koy xalaat wala bul ko sax woo téléphone su ma doon maa yow sax nga supprimer numéro am comprendre nga donc loolu dafa am ay points yu bëri yoo xam ni euh, après da koy marqué ci sa diggante yow ak moom mais bul fàtte ni moom dafa am jëkkër foofu laay waxee te yàlla suñu borom am na fu dégg naa laa taqara bougie naa dama ko xalaataat parce que Korok wax naa sax ba ne la da nga juum ak yooyu mais bi ma demee ba tëdd Korok ma xalaataat ak li yàlla suñu borom wax ci ci xale bu jigéen bu am jëkkër njaalo juumuma yaa ngi dégg waaw parce que nee na la même budul sax sa sa sa sa sa sa sa jabar ngeen seet dara day doy waar waxoon duma laaj boo xam ne nii dafa am jëkkër xam naa loolu yaa ngi dégg donc foofu dafa nekk loo xam ne nii. déglu ma maam ci point bu am solo Ibou appel bi c'est la deuxième fois sax bi ñu toogee fee appel bi moom moo sonné sa téléphone. non bokkul ak bii da man liir naa ko. non bokkul ak liir naa appel bi lii ka moo la ah, woo. mais duma ko jël parce que leer na ma ni sa ci yow la. waaw mais lii ka xam nga d'accord xam nga wowoon na la. sànq fee ma toogee ma bàyyi la ci biir ngeen ma sa yaay moo la doon non même ma ñëw même ma ñëw non non ma sosal lu ma waxul quand même. waxoo fi sa yaay moo la yaay lii ka moo ma doon woo yaay moo ma doon woo boo xoolee carte d'identité yaay lii ka lañ ci def def ñu ci lii ka seulement. léegi yaay lii la yow ko wuyu ko yaay lii ka mooy woote léegi wuyu ko yaay lii ka Ah, ah ok. saa bu yeewoo bu day sangu nag ba pare bu ndékkee ba pare il faut nga nu tuuti ndox mu tàng <laughs> ay <laughs> waxu ko jaaxle ngay wax de say feet nga may jox noonu yàqu nga damay jël sa yos boole kook sama yos mu gën a dëgg te ngaa noppi te noppal sa toog question mm. man waa léegi yow noppalul man dinaa ko toppatoo à ma manière. amul ah problème waaw. dinaa ko toppatoo à ma manière incha allah. baax na. Mm. am na <laughs> diw bopp boobu dafa yàgg dafa périmé am na yeneen yu bees. boobu noonu daa yàgg. moom moom boobu la bii ma la defal tey moo gën na. Hmm? bii ma la defal tey moo gën de. Hmm? Hmm? <laughs> ok lii ñu xale yi nii ma xale yépp waaye. jaajëf nekkal ci jàmm. ciao ciao. allo oui dafa mel ni réseau bi normal la. yaa ngi may dégg allo. allo oui. allo yaa ngi koy dégg. allo maa ngi dégg bu baax Ibou. ah d'accord allo. allo Ibou ci ko baax oui ça va oui je parle avec toi ça va bien naka yitte yi mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax alhamdulilah. pourtant démb sax maa ngi la doon jéem a woo mais par la suite ah, après daf doon sonné. après xam naa nag da nga xam <laughs> ana waa kër geeg yooyu j'espère que tout va bien ak activité yi. tout à fait. waaw en fait depuis barki démb ba léegi maa ngi lay oo nangoo téléphone. et j'ai vu que retiré nga ci compte trois cent mille. Ibou yaa ma dégg. mu ne ndax yaa ngi koy dégg. Ibou. oui. yaa ngi dégg bu baax. maa ngi lay dégg waaw. dama ne que retiré compte trois cent mille. ki tontu. waaw ci gàb gàb du ci compte bi ci gàb bi. waaye parce que boo retiré man dañ may envoyé message bi nga xam ne retiré na léegi jox nga si mbay wala joxoo si mbay parce que da waxoon ne. si jox jox dañu waxante woon dégg ma dañu waxante woon que di nga réglé sama problème ma jox la sama carte jàpp nga ne su ma la joxee sa carte sama carte jàpp di nga gérer problème bi te ba tey gisuma benn changement mbay manqué wu sama téléphone. xaw ma jox nga ko ci xaalis bi ou quoi que ce jox ko jox naa jox naa ko vingt mille avance. quoi vingt mille. waaw. ani xaalis bu des bi. waaw dama ko jox xam nga tey mënuma waxanteegu ma ak moom lu leer parce que nit ki boo koy liggéeyloo sax au moins ngeen déggoo ci prix di nga ko jox avance ba liggéey bi sotti nga soog koo jox reliquat bi. mais non mais attends toi qu'est-ce que tu me racontes comme ne la da ma waxoon ne di nga ko gérer vite ça léegi nag nii ngeen ko bëgg nekkee du du yoon. dama bàyyi may wuy sama téléphone bi nag ndax lii dina indi loo xamante ni duma ko mën a régler dégg nga wala ku ne mu wutal la numéro boo xamante ne bu ma demee moom nga may oowee. xam nga bëgguma nga wax ma teg ci baat. waaw. moom sax li mu def nii tapage nocturne la parce que warul nit warul dem kër keneen ngay woote moo tooñ. waaye nag am na wax yoo xam ne dee su ko wax. waaw kay déglu ma li mu wax nag moom lan est-ce que war na nekk di ma digal nan ma war nga nangam ak nangam ak nangam yow bi nga ñëwee da nga xiif. déedéet da nga loo bëgg. ah daaw déedéet moom kay ah? moo waane rek moom kay. kii xamoon naa dina woote man xamoon naa ko. Ah. xamoon naa dina woote. ah <laughs> mi ngi noonu et man yooyu ni mu ni mu dox si man yii na ko dëgg yàlla daf may déranger damay yàq sama temps ci yow. <laughs> sama temps damay yàq xam naa ni loolu waykat bi doon wax li ma doon seet gis naa ko. gis naa ko de. ah loolu laa bëgg. gis bu baax. te fi ma ñëwee sax dafa baax. jamonoy corona laa ñëwee. ah kenn du génn. génn génn. déedéet. mettre la en <laughs> cas. xam nga xam nga waykat wa wayoon na ko mooy xam nga da di nelaw yeewu leen bokk waaye bii bii fii la way bi baaxee woon. fii la way bi baaxee woon. Hmm. da ngeen di dox. toog leen boog ah corona dugg ci dëkk bi ñëppay toog. <laughs> waxaat na ma dégg. <laughs> fii ma ñëwee moo baax. allo. réseau bi moo parce maa ngi nii di ko di ko di ko gérer nii may ma tuuti rek am na ñu déggante waat. c'est sûr et certain. ok. ok maa boo gisee ma doxale ko nii c'est juste que bëgguma woon sax ñëw di la expliquer muy mel muy mel ni li ma lay wax dama ko préparer mais dama nekk nit koo xam ne damay bëgg lépp luy am rek mu nekk loo xam ne nii danaan tag mu leer ma ne doo ma ci sax laaj tam nga jàpp ni sax man maa def deal bi wala man maa créé di sóob di fen fekk amaana man maa ko créé monté ko nii parce que bëggoon naa su may woo mu fekk la fi yaa ngi dégg waaye nag gàcce ngaalaama ci sa compréhension mbay ndax trois cent mille yooyu di ma ko récupéré tak laa yëkkati vingt mille francs ci suba gi ma ne wala dama la koy sànni mel ni ku lay tool comprendre mbalageel la ko jox la vingt mille xam naa sax du la yëngal mais c'était juste que pour def benn acte ba nga xam ni man am na ci lu ma toog. waaw kon ma am sax. naa la wax lu mel noonu. <laughs> loolu rek ba fi jeex ah. loolu gaañee tey. man de xam naa ni ma xool couscous. xam nga dama laa xam. waaw ah, ah, li nga ma xam bëgg xam xam naa sa plat la. moom nga fi def waaw. boo hmm? ne ma ciy jënd lu bari estafet ko. boo defee couscous dinaa la may xaalis de. ndax bu ma may xaalis. barke rasul xamul ah. <laughs> ay waa ji lay seetal la mu benn loxo rek. waay waay man ah. yow loo def neex na ma. Mm. fi mu toll boo soloon kilo di entraînement ak ay crampon. Ah. laa lay gën a bëggee. barke rasulullah. ma dem jigéen dafay dafay dafay dafay dafay dafay salissant jigéen dafay dafay amis gële. yaa ngi dégg maa ngi la war a dolli ñaata mbay cent cinquante mois vingt cent trente laa la waroon a dolli mais lépp dama ni du ma la ko jox global parce que su ma la ko joxee mën naa ñëwaat di la waxu lii ka nga ni moom ko faata feer eh, ma wax ngay reet di def sa affaire yooyu noonu xam naa la mais lépp dañ koy teg ci temps ak tigirin temps maa la war a jox cent trente mille te barke weer wi du dee te joxuma la ko bu ci am sax problème hum amoon kon cent quarante laa lay doole. non man maa amee dix mille. man maa lay jox yow yaa ma mayoon vingt ah da koy complété ñu soog a séddoo. déedéet séddoo wuñu sa xaalis la yow yaa am sa carte gab yaa am sa xaalis ñu may la ko jëlal sa xaalis la. wallaay ndeysaan. li tee naa jox nag ko. nga ko. wala <laughs> def li la neex bu dul sa yàgg yéen a mënees na ko bulus nag bulus. ah bulus ne xool bulus ah, ah, joxoon ah. xale yu barkat. billaay ndeysaan seetal lii rek. ndeysaan dégg nga xale yi feccatu nu fo. yi da nga naan burus ba yàgg rek nga ay non rek yii moo ko gëjee dafa xaw ma. kan la non nekk ma gëjee gis def yi ma kan la rek ah lii. <laughs> nee na jox naa la teen jox nga ma teen de. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def waaw kan moo génn bàyyi tëj bi. ngi fi. affaire ngi si jàmm. ngi si jàmm bu baax naka naa na def. sax. ah la ma la mën waa kër gi moo tax ma ne ah. xaar ma ñoo ngi nii kay ñu ngi si jàmm. ana Ngone. ah Ngone mu ngi fi. ah mu ngi fi mi ngi si jàmm baax. fu mu nekk. mi ngi nekk. waaw xaar ma dem xool Ngone. waaw. ay. dégg <laughs> eh, kay. doo demee noonu kay. mu mu toog mu toog jógal. kii lan la. mais ay lan lan lan la yow. man dama leen namoon de ma ne ma ñëw seet si leen. mais yow lan nga ma yabee ba ñëw sama néeg dugg saa nga fëgg. bànn. ay yow yaruñu la de. maa ngi jéggalu. mi daa mel ni Moussa dafa ñëw de. <laughs> eh génn. yow réew nga ah réew nga de. waaw dama présenté sa jëkkër waa tey kii xam na boppam muy mel ni nii. kii kan la yow kii kan la ah. ayda ayda fu mu dëkk. yaa walay seet fii. ah. yaa walay seet bu mu yàqu. bis ne mën la jël caabi bis bu ne mën la jël caabi ah ayda bi fan la jóge. nga ni may caabi nga ni may caabi. caabi sànni ci rolal gi. ruutal caabi sànni ci rolal gi. daa koy sànni nga ne ma koy sore. eh eh bàyyi ma ne ko. ma lokk nga naan jox ma ndox ma jàll waaye jëlee. caabi li nga yaakaar naa ko jox nga rek ko yow. yow boo caabi sax du ma génn. mooy yow. ay dañuy sopp na de. ay dañuy bu ñu fekkoon ci ci ci. duñ fekk ah waaw yow tamit nag. biy def daal xam nga day tëju. ah waaye tamit xam nga nag. ay da dafa ma fekk ah ay waa jële xale yi léegi kenn yaru leen rek. non kii ah. mooy waate. ñëw dugg si nekk saa kër. mu ngi mel ni béjjën ni bay. Eh. <laughs> Ah, waa jële waa jële waaye lu neex daal la neex rek. bakkan jàmm la bëgg. Hmm, bakkan jàmm. bakkan bu mënoon am jàmm moom day rek. Hmm. seet ndax di nga dem àjjanaam. di nga am ah, jàmm kat. bu baax nga yaakaar yàlla. sax xam nga ne day yokk jàmm. Hmm? na. Ah, ah, ni fii la nan <laughs> lune de miel. ah waaw. nga ni ma Lac Rose. Lac Rose gii. Hmm. <laughs> ñu dem Lac Rose. foo bëgg a dem yow. ah man foo dem baax na. Ah, waaye Lac Rose baax naa fa nekk ak yow rek. dan fay ma ja tam tamit xam nga. waaye ba duñ tere Lac Rose génn Lac Rose dem Lac Rose. Eh, xam nga rek danoo nekk ci. soriwul waaw. déedéet xam nga Lac Rose mu neex. mooy da ngay ca néeg bu mu neex la nga la ko ci doxum xorom mi <laughs> sa cat wàcc. <laughs> bu la neexee nga dem yéeg ci gëléem ya baa ca motaar yooya. ah waaye Lac yëf yi waaye yow daal fi ñu toll daal comme la neex na la léegi ma woote. ñaata fan. Hmm? ñaata fan. nee na la deux mois. Ah, dafa daal say bagage. man dafa daal hmm? boo fi bàyyee cuuraay yi. boo fi bàyyee cuuraay yi <laughs> waaye ah, ah yow xam nga ne di nga dund dara. Hmm. commencé waat ko dund day mel ni da ngaa judd tey. ñu war la tudd ginnaaw suba. mosoo ko dund nag mukk mukk mukk lii. fan laa koy dundee fan jatu jatu joom mais mais ni uus. xanaa xamoo boobu la yàlla dimbalee ba nga takk jigéen bu gàtt boo moytuwul noonu la wërsëgam di gàtte noonu la ay pélégiram di gàtte noonu <laughs> déggoo ma naan nen ñu doon nen na mu toll góor nga jàpp ko di ko soli nen rek taayam ak taay nee na man day bu ma gisoon sëriñ bu ma liggéey ba dootuma dem sax naa ko def. Eh, ah, jarul liggéey. xale a ma jaaxal rek day neex rek waaye ma xale jaaxal woon nga xam ni sëy si naa yàgg na <laughs> yow daal. man def la gros weer.